ngeen teewlu sëriñ bi seen xol yi yéen a ngi jàkkaarloo sëriñ bi teewlu googu man man moom laa gis teewlu googu nag moo moo moo moo rëy man lool eh, waaye nag damay damay damay teewlu man itam eh, yàlla mi ko def ci yéen mu dolli leen ko te bu dañ mukk di leen ko dolli ba keroog bis ba fa fa fa fa ñuy wane eh, eh, ndam ya eh, sëñ Tuubaa loolu foofu rek la leen xool loolu foofu rek ndam loolu rek la leen yéene ndax lu mu bëggal sama rek man ma wax ne yéen laa ci jiital yéen yéen a <laughs> loolu moo loolu nekk fa ndax bu ndax bëgguma dara lu sëriñ bi wutuma dara lu te lu ma ci am yéene naa yéene ko lu ma ci bëgg rek bëggal naa leen kon nag jërë ngeen jëf eh, jërë ngeen jëf di leen sant gërëm bu baax a baax seen seen taxawaay bi ak seen jëf ji du loo xam ne mas koo sant ci làmmiñ dañ koy teewlu ci xol rek xam na sëriñ bi gis na ko te te te gërëm na ko ci gàttal gis na ko gërëm na ko kon loolu doy na jërë ngeen jëf. dama ko waxoon keroog rek. kilifa la goo xam ne àdduna sipp ci ñeew képp koo xam ne yaa ngi ci war a xam kon yàlla na fi yàgg tànd mu yëkkati kàddu yu cant nag ak ngërëm di ko jële ci jëm ci kuréel bii nga xam ne yàlla def na keroog ba mu koy njëkkee tàmbali boo màggal Tuubaa day door a jàll muy bëgg jëm ci liggéeyu université bi ca daaru tansil boobu suñu Ahmadu Badawi mi ngi toog sëñ Abdoulaye Diop mi ngi toog sëñ Bay Saar ngi toog sëñ Cheikh Mbacke Seye mooy jataay ba njëkk def laaj ci ndigal sëriñ bi jox leen ndigal ba noppi jël aw tur jox leen tur wi nag kon mooy taliaatul muridiya ñuy bo ñuy ay jàmbaar di boroom Pastef bayit ba sama xel de moom rek moom la sëñ Basiiru sëñ xaari ba boo waru faqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun mahal wafaay bi sidqin fil uxuwaati muy liggéey Masaalikul janaan mu fekkoon Cheikh Sidi Moxtaar tàmbali woon ko ak Massa ak jumaay Tuubaa mu desoon lu bëree bëri loo xam nit ñi xamuñ ko waaye lépp mu àggale ko daan waaye ne sama yitte jëpp nag maa ngi ko jëm ca daare Cheikhul Xadim ji nga xam ne ndigalu Serigne Touba moo ci desoon ngeen yéen itam ngeen jël fa engagement te al xurru xurru maa lam kenn déggu seen communiqué. kenn déggu seen woote ko ku ko xamul dëgg dëgg sax du yëg seen liggéey ngeen liggéey fa bëti yi yéen ngeen liggéey ci université kon loolu li sëriñ bi wax suñu am wax na ko léegi bu ngeen tàggoon sëriñ bi kon sëriñ bi danaa jéggal naa ndax yërëm leen ndax sëriñ bi mënta tege ñi nga xam ne seen maam yi sax dañoo yaakaar suñu Tuubaa bu ci teg nit ab liggéey sax day diis noonu la ko yàlla bindee sëriñ bi mënta teg kenn dara kon nag bu yàlla defee lii am. ngeen waxtaan ci seen biir tàmbalee ci sëñ Bay Sarr sëñ Ablaye ak sëñ Pape Fall ak sëñ euh, Sëriñ Seck ak sëñ Kabou Gueye ak sëñ Mbacke Samb ak Cheikh Cheikh Mbacke Sey ñoom ñëpp daal ak ñi teewut ndax boo xasee tudd kenn tudd nga kenn suñ ba yow tam lay gërëm ndax yaa ngi leen di gën a boole leen gën a dajale te loolu ci liggéey Sëñ Tuubaa bi la. ndax Sëriñ Tuubaa moo ñaanal suñu borom ne ko yaa rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika alxasini wa shamlaj maa kon loolu lu am solo la foo gisee lu baax rek yéene ko Sëriñ Tuubaa sëriñ bi képp ku koy jëfal ci yow lay delluwaat kon nag sëriñ bi nee na ak cantam ci yéen rëy na lool ndax lii kat bu ngeen ko defutoon dooloon na seen jëf ji ngeen jëfoon démb waaye xam na diggante bi gàtt na ndax ñett fan ngeen fi ngeen ko dajale kon ñu bari sax yéeguñ ko waaye lii yi ndax kenn mën a guleen fi boobu ko sëñ bi wootee ba tey nag fu ne taalibe yi nga fay jóge ñëw di joxe kon sëñ bi sant na bokk taalibe bi yëpp waaye yéen mi ngi leen beral seen cant di leen ñaan li tam addiyee ji ngeen fi indi yàlla la ko suñ borom tàbbal ci lim deele ci ku def ci yoonu yàlla te xam naa ne tàbbi na ci ndax dara génnu ci dara ci taalibe yi bañ na ko ba da koo ber sax duuru ko ci kon sëñ Tuubaa bi da koo ber ngir lépp jëmaat ci mbindeef yi te boo ko defutoon it yéen ba ngeen ko xasee joxe bu leen sa bu leen neexoon teg ak almet lakk ko ni koo der salaam defe waaye moom ci sellalam nangu dara jaxasoo ci sax lépp da ko delluwaat ci mbindeef yi kon yëg na ne lii eh, xam na fi mu taxawe te guddeeg bëccëg mën cee def te li ciy feeñ itam li ci nit ñi xamul moo ko mu dimbali ci nit li ci nit ñi xamul moo def kon dañ ko ñaan yàlla yàggal ko fi te ànd lii seen yéene mooy lépp loo bëgg a def nga ne nangam laa bëgg ñu def ko nanga ko bëgge moo tax lii bi mu xewee li muy jàmp-jàmp bañ déggee sa kàddu dégg sa jëf ñu ne dañu daal di ñëw feeñal seen yéene bañ ma ko waxee dama leen waaw yéen seen naal wu mag wi macha allah tarati ngeen dara ndax daare alxuraan jii nekk ci mu jàmm Cheikh Ahmadul Xadim dañoo ñëwoon ne la danoo fas ne caabi lañ lay jëbbal liggéey ba yéeme na lool ca xayma ju njëkk ja juróom-ñaari milliards yu topp lañ waxoon ne moo koy liggéey ñu ne la waaye sëriñ bi caabi lañ lay jébbal daal di waxtaan ci seen biir nosu nga tuddee leen turu màgg woowu yi tali'a nga xam ne ñun sax dañoo xoolaat mën jiit tali'atul yi bu ma leen koy firil nag du daj sama xel rek ma indi ko ci waaye léeg-léeg dama naan leen yéen a war yoon wi ni liggéeyale sëriñ bi ci jamono ji ñu toll muy mbooloo mu àndandoo di jëf ju sell kenn ku nekk di def kàttanam waaye ñu xam ne lu waroon a jar nangam mën nañu wax ne genn wàll ga ndax liggéey bee ko fa dem luñ la wax ne dem na ci rek da nga naan wax ëpp na ko bokk na ci gan ñi fay ñëw di ko seet si loolu la ñuy njëkk a wax waaye bu ñu leen waxee ni ñu ko defaree nag dañ naan loolu moom kéemaan la ma ne leen bu ngeen duggee ci bunt bi ba yegg si fee lu ngeen gis mooy sëriñ bi li ko taalibe yi jox ka am dërëm joxe ka am ñaar dërëm ka am juróom-benn waaye daayira yi nga xam ne dañuy dajaloo di eh, di sosi ci bi di ko indi wala ñu yët ko seen bunt ci sëriñ ba mu indil ko sëriñ bi ak mbooleem Cheikh Seck njaboot gi li ñu jox sëriñ bi ñii nag dañoo ñëwoon tobbil seen bopp aw sas wax sëriñ bi ne ko daare alxuraan yi caabi lañ lay jébbal waaye yéeme na lool liggéey boobee nag ku koy def man jàppoon naa ne talatuñ leneen bi ñu ma ko waxee ma ñëw di tàggoo si loolu laa la wax ne la damaa damañ ma ko waxee damaa defe noonu seen sas wi moom talatuñ dara nga ne ma man de bu ñu ma ko waxoon loolu laa leen ciy tegal mat naw sa sëkk waaye nag boo demee na nga leen xamal ne lu ñu joxe ci loxo borom bi subhanahu wa taala lañ ko teg Euh, liñu wax ñaari téeméer ak juroom fukk la ci wolof ci million di 250 million ah dañ ma def jëwriñ ci kanam waye jappal ni ñoo ma gën a ëpp Pastef ñoo ma gën jup jub ñoo ma gën ñoo man ci liggéey bi dina ci cité ñen rek ku melni serigne Abdoulaye ak Serigne sek mi ak Serigne pap Fall mi ah, ak Mbacke Samb mi ay nit lañuy ñuy Euh, bu ma nee bu ma téléphoné nangam rek dañuy mel ne ñoom dañuy daw ci sëñ bi la jëm ak sëñ mi Ndiaye samus mii maa ngi ko doon fa Ousmane Ndiaye ku baax la lépp loo xam ne woote naa ci euh, dañuy mel ne ku may puus lii lii sëñ Ablaye mi xalaatam la man xalaatoon naa ko waaye dafa tukki France la ma wooyee alxamis ay 4 heures fekk maa ngi añ ba pare ni ma mbay war ngaa yëngatu ndax ci mbënnum Tuuba mi nga woote ci nu jëf ca dem ca kanamu sëñ bi teg ko ci loxoom mu ñaanal nu nu dellu ca waar wa ba mu fa jógee quatre ma dem sama bureau laa toog seize heures avant dix-huit heures li ñu dajale jege na téeméeri million ci téléphone rek ci yoonu wi sax am na ñoo xam ne fi ne ñu ngi woote di joxe ñu ni ma nag nan dem yóbbu ko ajjuma ko tey bu nu jullee takkusaan ba pare Mbacke daal sa njaboot a ngi nii say taalibe ngi nii dégluwuñu lu dul yow la ñuy lépp loo xam ne foog nañ ni bëgg nga ko saa yoo joxe ne joxeñee taxaw nañ ci. lii mooy liggéeyal Serigne Touba lii mooy li nga xamante ni moo am solo ndax dafa bari ñoo xam dañoo bàyyi seen i dëkk seen i dëkk bàyyi gent seeni i dëkk maam gent ñu ñëw ci Serigne bi. ñu nekk ci ndox mi te bañ fi ñëw yaakaar ak jàpp ni fii moo gën a yomb ci ñoom ab dund moo gën a yomb ci ñoom moo ëpp ci ñoom naaf noflaay ñu gental seen i dëkk ñëw bi ndox mi dalee ci seen kaw na wan nga leen ni Serigne Touba mooy xettilikaayu adduna mooy xettilikaayu àllaaxira ndax jëf ji yaa ci gën a yaa ci jiitu ñëpp bi nga ñëwee sarak ju baax ji muy Cheikh Mamadou Bachir di jàmbaar lool bari na ñoo xam mi ngi leen di woo di leen soñu ñuy indi di la jox addiya te doo xam ne moom mii moo leen woo loolu lépp muy ab liggéeyam boo xam ni jaadu na bu buñ toogee ci yow ñu seddal la ko Mbàkke dañ lay ñaanal yàlla guddal soo fan ñii nag nii la yàlla def neex na leen seen yéene bu doon buñ ko mënoon tey fanu yonent yàlla nuuhin wala yàlla di fàq jox la ko ndax sagub yoon wépp nga di santaale yi sa mbokk ma ca teewaawoon muy sëñ Babacar Sy Mansour li mu def gis nañ ko lu symbolique la lu rëy ci njabootu sëriñ Tuubaa la lu rëy ci yow la lu sedd sa xol la sëriñ Basiru muy waxtaan nga ceeg moom mu doon jëf joo xam ne jëf joo naw la jëf joo fonk la ndax eh, bàyyi na xel ni fee mu nekk ak fii yéen a bokk sëriñ Tuubaa yéen bokk Seydi Alaaji Malick kon Mbàkke loolu lépp nag buñ koy def ci yow lañ ko gisee ndax yow yaa yamalewul sa jëf ak sa taxawaay ak sa xettil mbindéef yi ci ci ci biir réew mi sa loxo ak sa xettilaa kon day génn ba génn bitim réew mi la sëñ Tuubaa waxoon amara nii rab bi an usarriha bi an na nii man laasun wa mafsan fa man araadal xayra fii kiltee daari ni fal yarus bii loolu nga dëggal ci mbooleem euh, askan wi nekk ci biir àdduna bi kon Mbàkke yàlla na yàlla guddal soo fan